Mm-hmm. bu réew mi tàkkul wala Sénégal yàquwul ñoom joué nañ ci bu am solo ndax conseil constitutionnel membre sept lañ nga ji cinq yi président de la république moo koy leen moo leen di nome yeneen deux yi assemblée nationale la jógee nga gis ne fi mënoon nañu wax ne ah ñun de ku ñu nommé bu ñu neexee bu ñu salfañoo laa bu sal salfañee ko. Mm-hmm. mais conseil constitutionnel dafa nekk institution publique nekk la plus haute instance euh, du système judiciaire boo xamante bu joxee décision yi décision yi du dellu ginnaaw. gis nañ nag nag euh, comme ni ko honorable député waxee loolu man ndekk moom laa njëkk félicité parce que mos naa gis benn message suñu panel bi mu ne Barth va participer Sonko va participer. Mhm. boobu dañ def récemment rek recours contre le conseil constitutionnel sa à dire bañ bëre bëgg bëre bëre dana am ndax combat bi Sénégal lañ bëgg a xam Barthélémy Dias lu muy peser ci mim réew Ousmane Sonko moom lu muy peser ci mim réew kenn ku nekk Macky Sall mu nekk tête de liste lu muy réew mi. Mhm. ak Euh, yi président xam na sax euh, ñu doon ci waa patriote yi doon wax ne bi préfet interdire euh, manifestation bu atel bi dañ leen waroon autoriser ñu xool seen dayoo ndax seen mobilisation ndax am nañu militant am nañu yooyu ba tax ne vraiment boo seetloo article yi ñuy yi ñu évoqué muy L zéro cent quatre-vingt ak cent soixante-dix-neuf bi yëpp moom la defal Ousmane Sonko war ne daal nañ bàyyi ñëpp ñiy bokk ndaxte nag conseil constitutionnel mooy régulateur bu ñëwee bu ñu la kalaamee da nga war a nekk euh, charge comme ni leen di woowee cette charge ay charge vraiment ndaxte réew mi euh, bu tàkkul wala bu amul jafe-jafe bu amee xëccoo euh, dafa fekk ne conseil constitutionnel tey am na nu mu ko nu mu tegee réew mi ci yoon mais nag rupture am na dans la mesure où ndaxte conseil constitutionnel bu Macky la ci à l'époque dañoo gis ne souvent résultats yi wala décision yi sax dañ ko jot 14 heures xam nga fan yi am na benn euh, taskatu xibaar bu fi génn information ne Barthélemy Diaz sa candidature est euh, est rejetée maanaam Barthélemy du nekkul après ñu mujj présenter seen excuses. parce que waaye conseil constitutionnel waxul waxalaawoon. Mm-hmm. xam nga jamono jooju à l'époque euh, conseil constitutionnel lu war a wax 20 ay 14 wala 15 heures la koy taskatu xibaar di xam donc système bi dafa doyoon waar ci jamono à l'époque ci jamono ji fi Macky Sall la jiite. Mm. conseil constitutionnel bi nag euh, vraiment am na changement te ndax loolu la ñuy xaar di nga am benn acte bu ñu la def ba tax ne mënoo nekk candidat ci même réew nañ bàyyi ñëpp ñu bokk. comme nag ku nekk bu ñu la euh, caution bi nangam la ci million nga lijjanti ko dossiers yi critères yi nii la nga remplir ko da nga war a participer ci élection yi waaye comme ni ñu ko waxee rek euh, réew mi dafa am ñeenti coalition yu ñëw ñu ne coalition yu malfaiteur coalition yu yu yu exilé coalition yu nga xamante ni kër euh, brisé la ak coalition patriote yi ñoom ñoom ko wax donc conseil constitutionnel ne comme ay coalition yu jiñante lañ xal leen ma may leen occasion kenn ku nekk nga wane li nga mën mm-hmm. bu defee tey euh, ensuite le procureur de la république def affaire bu doy waar bu extraordinaire parce que gis nañ fi ñu ñu accuser division de fausses nouvelles euh, diffamation nga gis ñu xamante li ñu wax ñëpp rafetluñ ko ñi dem jàppoon na bu ñu demee dañ leen di jàllale place su mandat de dépôt ñu bàyyi leen ñu dem ñu bu nekk ay candidat bokk seen liste ba tax na réew mi boo seetloo euh, maam Diarra dafa tekk tekkaara tey bu fekkonte woon nañ ne Barthélemy Diaz sa candidature est rejetée noonu tu participer na la leer na tey manifestation dana am yëngu-yëngu dana am euh, réew mi dana yëngutu lool ah nga gis ne waa waa APR euh, wala waa waa coalition bi Macky la jiite ne xamoon nañ ko parce que politique lañ ci dugal waaw politique la ah, gis nañ ne Sonko jiite liste nationale bi rek ñu ne Barthélemy Diaz à l'époque taxaw na devant le mini l'Assemblée nationale devant ministre de la justice ne oui c'est vrai que ñi ngi voté loi d'amnistie bi mais ñun suñu cas war nañ xoolaat parce que mm-hmm. man du mën a nekkati candidat fii d'ici cinq ans wax na ko fi. Mm-hmm. moom xamoon na mënul waaye li tax mu dem tey euh, bu su conseil constitutionnel sukk sukkandikoo ne ah Sonko de euh, man maa ko ko waxoon ne mënul nekk candidat waaye vingt quatre mars bi nii voté na ci Ziguinchor Barthélémy Dias it moom it euh, condamné nañ ko définitive mais moom it vingt quatre mars bi voté na. Mm-hmm. pour rek réew mi am jàmm. pour rek mbir yi dem ci yoon naa leen bàyyi ñoom ñi bokk. kooku hmm. mooy eh, conséquence lii c'est à saluer et puis rupture la lu am solo solo la am Diarra loo xamante ni vraiment sénégalais nag boo seetloo nag eh, am ñoo xam am nañ ci gàcci ndax eh, diabolisation dafa opposition moo koy am opposition mooy annuler mooy contester mooy rejeter di cont di def ay manifestations. bu fekkente ne tey nag euh, euh, li amoon na tey euh, fu naa tey vendredi bi dana neex ndax dem place le place de nation di contesté waaye tey. fu naa ko jàmm la ñuy nemmeeku waaw tey moom dëkk dëkk bi day neex jumaa mubarak lay neex jumaa ji moom tey dana neex waaw tey moom tey amul contestation. d'accord alors boobu loo ci sànni ñu dem ci beneen ponk. ñun suñu loi yi nga xam ne presque dañuy copier coller la xew ca France suñu constitution. suñu code pénal code de procédure suñu code électoral. dëkk bu nekk ak culture dëkk bu nekk ak li mu nàmp mais ñun maanaam tubaab yi këyit yañ fi bawoon dëkk bi dañuy ko doxee mais bokkul ak benn suñu culture même bu doon suñu culture la laa la wax ay réforme yi ci dëkk yonente alayhi salaatu salaam bu fi nekkoon ba heure bii nii ay réforme moo tax yenn saa yi ñuy organiser ay forum internationaux ay rencontre internationale yoo xam ni mais gars yi dañ ci dañ ci dañ dañ ci dañ ciy waxtaan alxuraan ji kenn du ko soppi mais léegi da dégg ñu ne diini ak jamono mais loo xamante ni nii yow article yoo xam ni article quatre mm-hmm. alinéa deux dafa ni lii ak lii ak lii nga dem ci article cent ba en son alinéa euh, euh, trois mais loolu presque dafa démentir li <laughs> bëri na ci de. déggoo ma de. ci loi yi. non mi mi mi mi mais yoo xamante ne ni yow avocat bi day taxaw wax lii ci télé nga ne ah. Hmm. saa yi bu daal lii bu dee lii la loi bi wax moom saa yi ñoo ne ci dëgg de. Hmm. beneen fekk beneen avocat bi jëlul parole. Hmm. <laughs> beneen avocat bi jël parole génnee xoolal code bi nit ñi xoolal. <laughs> oui mais article quatre am. en son alinéa leen. mais lañ cay wax. même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale da ngay wax ne nangam député bi kenn amul droit def ko lii en pleine session lii ak lii ak lii selon le code nangam en son alinéa nangam mais beneen député ñëw yëg ne ko waa ah, d'accord mais alinéa nangam bi yeggalil yeggalil phrase bi. bëri na ci de. nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Mm-hmm. gars yi ne ah waaw waaw wax nga dëgg wax nga dëgg kay. kenn ki ne la waa mbër. doo jël commencement phrase lu la arrangé rek nga jël dañ ne la durée du mandat du président de la république est de cinq ans. Mm-hmm. est-ce que le président de la république a fait cinq ans un mandat de cinq ans nga ne déedéet il a fait un septennat d'abord. Mm-hmm. et le second mooy cinq ans mu ne la waaw mais constitution bi dafa ne la durée loolu la ñu wax après lu mu bëgg a rey. Ah interprétation yooyu rek. waaw mm-hmm. léegi ñuy tamit toog rek ci président de la république amul droit def ñaari mandat Macky a de deux mandats ñoom tam ñu wékk ko fenn rek waaw d' accord loolu loolu la constitution bi wax. Mhm. mais durée wu mandat président de la république ñaata at la nga ne ko cinq ans mu ne Macky ñaata ñaata ñaata yu cinq ans la def nga ne ko benn mu ne la et alors. et alors dañ ne deux deux deux mandats deux tappale boo xam ne moom moo am maanaam ci suñu ci suñu sart yi nga xam ne ñun ci lañ sukkandiku bay dund. Mhm. foo dem nag. am na léegi benn femme bu ko wax ne euh, euh, euh, loolu loolu moo tax bi son excellence ñëwee ne nañ leen def ay réformes judiciaires. Hmm. fajar mu ne réforme judiciaire mais réforme judiciaire rek la war a def. premier dialogue national. non mais attends sa waay ñun waxante dëgg constitution bii moom ku ko topp ku ne président bu ñëw. Hmm. di nga organiser référendum wala di nga am ay coppite yoo xam ne di nga ko ci def. via l'Assemblée nationale wala nga organiser. référendum pour ñu laalaat constitution bi. Hmm. wax nga dëgg. voilà. walaay bëri na werante de. ah man de man de man de man bon. ku nekk ni ko arrangé rek nga ko hmm. interprété. Kanda nag wax moom ci ay conseil constitutionnel moom dama leen hmm. man moom wu ma leen ñu jéggal ma nag. ñoom ah. sama papa yooyu waaw ah, waaw man félicité <laughs> ñoom non ñoom ils pour ça. Ah Sénégal sa liggéey ngay def benn affaire. lu leen war la. Eh. nit ñi félicité la benn ñaar dafa am yoo xam ne daf lay jot a jaar ñoom ñii la Macky Sall laajoon ne leen dama ne woon damay wàññi sama cinq eh. il faut ma laaj leen seen xalaat dañ ko waroon wax ne ko le respect de la parole donnée. moo gën a fort. Mm-hmm. xanaa xamoo pacte moral moo gën a fort ab contrat boo xam ne dañ ko signé noir sur blanc ci kayit. suñu maam da dañ ko fonkoon. kaddu. Mm-hmm. rawatina nag ab kàddu njiitum réew. Mm-hmm. nga wax ne man bu ma toogee septennat bi dama ko def cinq ans ma profité waale sax changé waale constitution bi viré ko jël caabi ji sànni géej. ñaari mm-hmm. cinq ans point mu ne maa ngi dem laaj conseil constitutionnel conseil constitutionnel bi ñuy éliminé ñoom Ousmane Sonko fu ñu nekkoon. ñoom ñooy ñoom ñooy ndeyu loi yi direction générale des élections yoo xawma la loi lanoo le code xawma lanoo lanoo ñoom loi yi ci réew mi yëpp moo tax ñu naan la ndeyu loi yi la constitution la charte fondamentale mm-hmm. juróom-ñaar lañ fa teg date yi ñu doon wax ci présidentielles yi yëpp naa leen dañ leen di féliciter parce que ñoom kat jël nañ seeni responsabilités ñeeg ñeeg ñeeg dugg na fi gën a fi man de jusqu'à la preuve du contraire. Hmm. dama jàpp ne date yooyu ñu doon wax loolu noonu yëpp. ay kii la woon daal. waa ji loxoom génn ca. 31 <laughs> li may félicité moom. Hmm. nguur gi laa koy jaglelee. mooy ne pour la première fois. yow sa première élection ñëpp a participer. Hmm. même bu dee yow nekkul sa compétence ak loi moom moo ñoom ñoo ne ñoom ñooy def seen liggéey. mais n'empêche loolu wane na ne jéemoo sinisé dugal sa loxo instrumentaliser justice instrumentaliser la direction générale des élections mm. instrument lu nekk dugg ca ndax am victoire au contraire ñoom dañ leen sa plainte dañ plainte oui plainte leen ba pare mm-hmm. ñoom ñu dem yóbbu seeni mémoire fañ leen plainte ñoom waa nguur gi ci moom Ousmane Sonko ci moom mm. ay avocat am dañoo dajaloo yor seeni preuve yu wane ne li leen di tuumaal du dëgg nee na dañoo dem wuy ci par contre man bu dee pouvoir bi. waaw félicité leen. gëj na fee nekk. ndax seen victoire bi. ne jàkka jaa ngi ku bëgg a nodd noddal. leneen li des nag affaire justice la. bu dee félicité moom côté boobu laay félicité. voilà su ñu daal di dem ci suñu beneen euh, ponk détournement présumé de euh, deniers publics euh, mm. portant sur trente millions amis mu mel ni suñu xarit bi Diégu Diop ak daal ak les fournisseurs daal nañ leen